rek mu mel ni bëgg nga temps yi Amérique de. non bëgguma koy dañuy dem di préparer wu ji waaw ñun noonu la ñuy def saa bu saison tëjee dañuy dem def 3 mois. nga def daaw saison. bëri benn combat combat bu bëri woon coow si diggante Gris 2. combat bi mën nga ma coow li ba ngeen di bëree coow li avant combat bi coow li ba ni ngeen bëree ba yàlla may la ndam. waaw mais xam nga coow li coow li lenn la. ndax Gris boo xoolee ku ñëw ci sa mbir rek da lay daan booy am ak moom combat si wa Euh, Gris 2 bu ma daanoon tey simple dootul amati valeur you bu ma daanoon simple dootul amati valeur. lu tax ndax boo waxee simple danaan la danaan la danaan la mbëri simple yi ñëpp maa leen man kon simple dootul amati valeur. te xam nga waa Fass nañu mal dañoo ŋaamu. déet waay dañoo bëri wax non si dañoo xam ne raayat bi dañoo bëri wax. waa Fass noonu la ñu mel. noonu lañ bëri noonu lañ mel. te nag quoi mais li am laa wax. ci waa kon simple dootul jarati dara moo tax. combat bi amoon ampleur noonu waaw. mu mel ni tamit yow si combat biñ bi wax combat bi début bi da nga lu tax nga bañoon. non xam nga début bi sama staff la rek. Euh, man dama am euh, boo xoolee moom moo njëkk a bañ. waaw njëkk bañ. moom daane Ablaye Ndiaye dañ kaa wax rëg mu ne doonul mu jóg ñu jox ma ko wax naa ko anyway lu bëri wax naa ko. yaa léegi man ma dem daan Elton mu bëgg a bëreeg man. waaw. yoo <laughs> xam ne dama leen bàyyi ma jóg kii maa ko mën téeméeri yoon waaw. léegi combat bu ñëw ngeen war a peesewu yaa ngi dégg moom mënu du peesewu yow boobu te nga nangoo peesewu yow. waaw mais xam nga maa ngi nuyu maa ngi nuyu passage suñu papa Ligue Nicolas waaw xam nga nit ki boo amee moom contrat da ngay respecté contrat bi quoi man damaa respecté sama contrat moo tax moo tax mën na ñëw peesewu loolu la rek mais nit ki moom boo ko ragalee doo ko daan waaw foofu laa yem quoi. ngeen ñëw ca stade ba. gaa yi ne Gris 2 dafa diis est-ce que dina mën ci moom dara nga daan ko avec la manière parce que loolu lañ mën a wax yow loolu maanaam xalaatoon nga ne kii sa daan ci moom day yomb. waaw xam nga kenn ku ne daa am lu man mbër yi kenn ku ne daa am loo man man yàlla suñu borom damaa ma mën a bëri poids lourd. a lu ma gën a diis gën maa arrangé ndax loolu yàlla suñu borom dama kaa moo ñaale. loolu mais mais seen pëd dañ ñu di wax. loolu la ñuy wax rek mais ku seq ak rëg rëg géew ba di nga di nga tal leneen lu naan kii daa diis wala diisul. premier jàppante bi da ngeen njëkk jàppante ñu àtte mu mel ni foofu da nga jéem dara tële ko lu waraloon foofu combat bi jeexul foofu. tële loo ma ko sax ndax boo xoolee sama loxo bi duggul loxo bi duggul loxo bi moo duggul moo tax ma téewaat ko bu mu dëgër dookaa dookaa zongale. bu ngeen dellusiwaatee. waaw bi ñu delluwaatee dellusiwaatee te boo xoolee dama ko zongalee bi ma ko zongalee loxo bi duggul léegi ma xam ne moom poids lourd la ma ne xaaral ma tegal ko 16 ma tegal ko 16 mu jéggi 16 teggi 16 bi nag loolu kon kon moom su ma la déggee am na lu mu am ci bëri. waaw mais am na lu mu am am ci bëri mais maanaam euh, xam nga nit ki kenn ku ne danga am am loo mën moo tax ma la ka moom am na lu ko yàlla mooy si bëri ci vois oggi la kor la loolu la man waaw manuma kaa def ëpp ma doole maa ko ëpp doole du ma ko def. am na ñoo xam ne tamit ñu nañ ci biir maanaam ci ci biir ci seen biir bëre pays bi mu changé. maanaam parce que dañ ne daawul tànk boobu nañ loolu gën la faciliter jëli. non man li ma jàng moom dafa faussé sa sama li ma jàng. waaw da kaa faussé bu mu tegoon droite si gën a neex. Hmm. waaw bu tegoon gauche. comme bu mu mënee droite boobu bu ko mënee moom laa gën a moom laa gën a man moom laa gën a jàng ma si géej bi mu teggi ka nag sama faussé sama li ma jàng dama xaw a nax mais xam nga man moom partout là foo ma kupp rek ma baatare. maanaam fu mu baat nga kupp ma kupp. waaw man noonu la am mel quoi. léegi nga jóge si nag daan ko coow li jóg rëg diw rëg diw adversaire yi ngay tuddal bëri na ñu ngay tuddal ci làmb. non instant bi nag bu may wax ak yow nii instant bii Bombardier moo a tere nelaw du keneen waaw ndax samay morom dañ ma ragal. seetaan naa la nga wax ko Lutte TV da yàgg la nga ne Bombardier yow maanaam Bombardier itam lu la tere nelaw. non damaa tere nelaw damaa xam ne mbir dañ ka ragal te man ñun ñëpp ragal. damay am damay am envie bëre ak yow. Bombardier mosoon bëre ak moom Balla Gaye bëre moom Gris Bordeaux Modou Lô nga ne dañ ko mais dañ ko ragal lan dañ dem bëriwaat ak ñoom mu jox leen seen i revanche wala ñu koy revanche jox leen ko. pour yow yow yaa ko ñime. man rek kaa ko ñime te si di mu wane di mu jëg bëtam. koy dox. waaw ñu ngi daal ñu ngi si daal lu ma la mën a wax bientôt rek incha allah. am na ñoo xam ne dañ ne war yooyu a bëri. ñooñu si seen ñoom ñoo ñuy wax noonu seen xalaat la wax mais làmb ji bombardier lu mu def grand contre petit nañ ko war a def yaa may dégg Modou Lo kii combat la Ama Baldé Boy Niang Balla Gaye combat Bombardier combat la loolu lañ koy def Tapha Tine foo koy def Tapha Tapha Tine ñu jox ko kii Malick Niang yee loolay combat yi. Hmm. loolay combat yi ah. yow yaa sonn si six rek loolu loolu loolu neexul jëmul làmb kanam ndax dañoo war a defar suñu làmb ñun ñoo moom làmb ji ñun bëri ñi fi def année blanche yëpp dañoo ragal rek hmm. waaye mais waroon nañoo mën a bëri. dañoo ragal pour dañoo ragal ndax ay ay ay ay promoteurs seeti nañ leen leen ay mbër. mais damay ñëw ñoom mbër yooyu lañ mënta bëreel. Reug Reug seen mbër la di seen doom dem na États-Unis ñëw na coow li bëri na ci Reug Reug kii la war a bëreel ñi ne Bombardier ñi ne Sa Thiès ñi ne guy gi ñi ne Nangam yéen bu ngeen doon jox Reug Reug ah, bu ngeen ko doon jox adversaire tey kan ngeen koy jox. waaw asalaamaaleykum ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi ñu ngi leen di nuyu di nuyu spectateur yëpp ñiy bëggee Leewtoo TV yëpp di leen sant di leen gërëm. waa Reug Reug toll na foo xamante ni ci làmb moom moo wane boppam ba tax képp koo xalaatul ne war naa mën a bëre moom rek war naa mën a bëre moom. parce que ne war naa bëre mën a bëre ak waaw war naa mën a bëre ak moom parce que dafa wane boppam moom moom dafa wane boppam ci làmba ji. dafa wane cëramit ci làmba ji. parce que dafa jël ñaar ñoo xam ne nii. Hmm. Sénégal war nañ bàyyi xel li may wax Elton champion la. ñu wax moo ko Elton ñëpp ñu ne Elton moo ko man mu ñëw yóbbu Elton quatre-vingt-dix minutes daan ka Gris 2 masul daanu Gris 2 communication ñëpp dégg nañ ko Gris 2 taxaw wax ne mbër yi génn li li simple yëpp moom moo ay si ñoom daan na leen Reug Reug ñëw bërën ko jongle ko daan ka kon amatul adversaire buñ koy tànnal li ko déggal ci Balla Gaye ba ci Bombardier yi Balla Gaye ëppul Balla Gaye ba ci Bombardier ba ci Sa Thiès ñëpp ku ko làmb booleel day bëri li ngeen di tudd Balla na de xanaa seen ci moom. ah moom it moom nga dugg ci làmb bëri ba bàyyi bëri te bëriwul Balla Gaye bëriwul parce que yàlla moo ko may li mu am champion la foog ñu nangul ko ak champion tafaagi bi ñu ci toll nga bëri ba bàyyi bëri te bëriwul tafaagi bëriwul te Balla Gaye daal def na loolu bëri na ba waaw. dafa jël Tafa Gueye daan ka ñu nangul ko ak champion kon Tafa Gueye champion la woon kon Balla Gaye bu ci tolloo ñun nekk ci làmba ñu bëre ba bàyyi bëre te bëriwul Balla Gaye bëriwuñu. am na solo loolu leer waaw sa papa dégg naa ci waxam léegi mu ne ci làmba bàyyi te bëriwul Balla Gaye day nit ñi bëriwul. wax na dëgg wax na dëgg kay ndax ah, yow Balla Gaye Balla Gaye moom moom mooy xoromu làmb ji hmm. ah. rek yaa wax li neex ak mu naqari moom mooy xorom làmb ndax xamul tax ku bëre moom. ku bëri moom da xam ne am nga combat te yow da ngay xam ne ni yaa ngi bëri mbër looloo tax neex. léegi <laughs> léegi tey fi ñuy jeexal dañuy jeexal làmb ji nii nii nii nga gis làmb ji nii ren ni mu déroulé nii coow lii nangam nangam Modou Lo fay nañ ko lii fay nañ Ama jaralul lii Ama yow Ama Baldé jar na cent millions. xam nga man yoruma Ama Baldé <laughs> yoruma Ama Baldé doonu may safu Ama Baldé. ñoom boo demee si ñoom nga laaj leen. ndax jar na ko ndax jar na wala jaru ko. sa doomu ndey foofu laay jeexale seta ku ne xam ne sa lonkoom sa lépp la daaw dugg nga Fass daan Gris 2 ren mu dugg Fass su ko seenee jàmmalu Papa Sow. ba jeexagul. waaw ah, du ma sa jeex. waaw ah. ah, ma sa jeex. da ngeen a xaw a yab waa du ma sa jeex ndax combat la. waaw ñu koy waaj moom mu koy waaj mu ko war a waajee. waaw mu koy waaj mu ngi waaj te bu ñu bisee da xam ne kii am na combat. tax di ngeen xam ne ni kii combat bi moo mën a combat bi ça fait deux. mais Papa Sow ndax neex na lijjanti. Siteu nag bu demee ba mënta daan Papa Sow. mieux vaut na tekki ngembam. général dañ koy daan. général bu Fass de jël naa ko mu ne pap mu ne Siteu moom Papa Sow ko dàq bëre foofu xalaatu sax di ko daan. non non non non général bu Fass wax. Siteu ba léegi wanagul bërëm. Hmm. yeah wanagul bërëm. kon ci Papa ngeen koy wan. non non wanagul bërëm. Hmm. te incha allah dina ko wane si Papa. MMA bi kañ la. Iba bi la 14 décembre la. fii nga koy bëree. Dakar laa njëkk a bëree. Iba maa ngi bëree maa ngi bëree euh, bukki su xaw ma. fu mu dëkk. Euh, mu ngi dëkk si état Amérique la dëkk quoi mais si état yi la ne waaw. kon da nga ci am ñaari combats su ma dégg. non quatre combats laa si am. actuellement ñu signé contrat yi. waaw. benn bu bu njëkk bi mooy Sénégal. bu bi Sénégal deuxième bi Paris troisième bi Marseille beneen bi New York mën naa doon New York mën naa doon si yeneen état yi. waaw boobu de bu ci boo dem lépp lépp tuuti bari ba ñu yor ko ba ak yom seet. loolu amul problème mën a ñàkk. waaw sama sa montre bi naa la ko jox. ma ne ma ne ma ne ma ne ma ne ma